l'islam desee nag léegi nu ñu mën a def politique bi na nekk na nekk lu vigilant na tar bu baax a baax ci mouvement islamique yi nañu leen rey nañ leen delloo gannaaw nañ leen rey intégriste yi fu ñu wan nag ci monde bi nañ leen topp su aajo su aajo ñu def leen doom sànni si géej gi sax nañ ko def ndax ñu mën a moom adduna bi loolu mooy seen programme su ko defee ñu mën a moom adduna bépp def ko génn kër def lu leen neex dëkk na mu leen neex tasaare nag ci biir adduna bi ay attenté kër tasaare ci biir adduna bi ci biir Afrique ci biir Sénégal ci adduna bi bépp ay agents secret yoo xam ne sax bokkuñu ay taxasusaat ñii ay sociologue lañu ñi la ay ñi la ay politicien lañu ñi ay économiste lañu ñu tasaaroo bu biyee ñu ne ay jamiyaat xayriye la ñu doon jamiyaat xayriye mooy lan ci tubaab bokk yi association bienfaisance dañuy dimbali daara yi dañuy dimbali nit ñi doole dañuy dimbali baykat yi bu bee ñu ne ay ONG lañu bu bee mu ngoog ay ay ay assistance technique la ñuy doon lu ne tasaaroo ci biir dëkk yu mag yi ak dëkk yu ndaw yi mbokki jullit yi da ngay dem ba ca dëkk yu ndaw ya nga fekk fa ay américain américain ci dëkki kaw ya mu soppi aw turam borom dëkk ba na mu sant mu del sant borom dëkk ba mbaa borom kër ga mu daal jàng làmmiñ wañuy làkk di làkk wolof bu dee jigéen muy sol garaam bubu di lekk ci rek laax ñam wu naqari lu mu naqari naqari moo la ko gën a mën a lekk ak ñu demee noonu soppi seen i tur soppi seen i mbubb bàyyi seen i aada dugg ci biir société sénégalais dugg mat sëg di dund ak ñoom nee na ñii dimbali ay ñu dañ ñuy dimbalee te léegi Europe dafa yëkkati affiche bu mu tuddee démocratie ak multipartisme lu ci monde yi bees yi la bokk la démocratie ak multipartisme waaye waqaa'i yi wone nañu ne loolu wax rek la démocratie ci tubaab yi nekkatul la mu doonoon li doy waar mooy benn baat fireetul la mu daan firi démocratie ci science politique li muy firi mooy ne peuple bi seet li ñu bëgg attewu ñu attewu ci atte peuple bi ci li peuple bi bëgg mooy démocratie waaye léegi réalité yi won nañu ne ne démocratie ci tubaab yi fireetul loolu te itam benn ci réewi Afrique yi fi jege islam dafa def défi défi te mooy maanaam gouvernement ba wate ak l'islam islam dàq ko ndaxeel goo xam ne gu mettee noona néew naa am ci ci ci ci ci xeeti wate yi néew naa am lool waaye ndax tax na loola taxaw te loolu mi ngi am ci kanam rajo yi yépp rajo yi àdduna bépp ak seen journal muy defi bu leer a leer a leer bu jëm ci ñiy woote démocratie waaye lu ca topp la ca topp mooy mboo ñu ëpp ci peuple réew moomee ñoo nga ca kaso yo fi mu nekk ñoo nga ca kaso ya li des ci xiste bi xam ngeen ko yéen a koy àggale seen bopp kon démocratie amatul démocratie mooy démocratie dafa am beneen définition bu bees yéen ñi jàngoon politique da ngeen di dellu jàngiwaat ci école politique yu bees yi démocratie mooy nga gouverner sa réew ci ni la ko Europe wala Amérique dicté loolu mooy nekk réalité donte multipartisme am na démocratie mooy nga ne nawu ci loxoy européen jéblu ci ñoom tuub te nangu ko adduna bi léegi ci ni tubaab yi tëral seen i plan adduna bi léegi ci ni tubaab yi tëral seen i plan adduna bépp américain yi dañ ko war a moom ak ak européen te mboolem calcul yi ñu ma yi ma ta def def nañ ko mboolem préparé yi war a préparé préparé nañ ko mboolem précaution yi ñu war a jël ak pexe yi ñu war a jël pour moom adduna bi yépp def nañ ko bi si gën a dangereux mooy li ñuy wax occidentalisé def nañ ci jigéen ñeeg gone yeeg mu ngoog fépp léegi nag daara yi doo nga fi desoon léegi nee nañ faaw ñu àgg ci daara yi mbokk jullit yi lii ma leen tënkal ay zuruuf mooy ak zuruufu duwaliya raahina ak zuruufu duwaliya raahina day mën ma ko wax ci wala fi dégguma tubaab ah ah nouvel ordre international mooy yii ma leen tuddal pour ngeen xam ne kenn libre kenn libre man ngaa wax li nga bëgg man nañ la la waxal li nga bëgg da nga ko wax waaye doo ko fi defee dési daa ngi nii bëgg dem loolu war nañ cee bàyyi xel ñun ñëpp sëñ daara bi itam war na cee bàyyi xel nit ku nekk war nga cee bàyyi xel julit ñi nag lépp ñoo ko def julit ñi ba nekk ci waawi yàlla ñoo doon sëriñu tubaab si ñoo leen tubaab yi ñoo leen doon jàngal ñoo leen manam fuuf waaye li am te wér mooy danoo jàdd ngërëm yàlla nangami siècle te loolu du waa Sénégal dong waa Sénégal waa Mauritanie waa Mali ah réewi arab yeeg fépp a ci yem ñun ñëpp du nit ñëpp fenkoog sowu danoo andi jàdd yoonu yàlla alxuraan ak sunna nangami siècle nangami siècle loolu dañ koy xam te reconnaître ko te nangu ko nangu sunuy bàkkaar te xam ne bàkkaar yi daa bari lool te ba léegi fépp noo ngi ci bàkkaar yi jàpp nañ njubug Sayyidina Muhammad bu yàlla kon nag kon nag suñ boroom yàlla te bala may jàll foofu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا اعف عنا اعف عنا يا رب اعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين dañoo yàlla nanga ni fekk faaw yàlla yar moo xam yar bi Amérique koy dóor moo xam France waaye faaw yàlla yar dañuy tuub te gaaw dellu ci yoon wi loolu ci côté ci beneen côté ñu xam ne nangu nangu ibtilaa sunna san borom yàlla maanaam yàlla soo ko ne gëm naa la li nga woote li nga ma sant dinaa ko def dinaa taxawal islam dana aha defal ma gis damaa bëgg li nga wax jëf firnde ko jëf firndeel ko yàlla dafa bëgg nu sonn yàlla dafa bëgg am ci ñun ñu dee li yattaxida minkum suhada am ci ñun ñu dee ndax islam taxaw ibtila la budda min al ibtila kon ñaar yooyu bu njëkk bi mooy mooy nanu yàlla gaa yi xeexu batar ku gañe ah xeexu uxud ku gañe yéefar yi ndax xam ngeen ne yéefar ya gañe gu ñu gañe ni ngi jóge ci jadd gu ñu jadd ndigal sayidna muhammad abdullah ibn rawaxata ak juróom fukki góor ñoom ko boole loon taxaw la leen ci kaw uxut ñoo fa jóge bàyyi fa ndigal la uxut a dellu si ci jullit ñi uxut moo dellu si ci jullit ñi waaye uxut bu ci topp ci guerre yi ah bu topp ci uxut ci guerre yi bu ci topp bu ci sësaat wala benn guerre bu mag rek ah xëndak ku gañe woon xëndak mën naa ñëwaat waaye nag faawu ci ñaari yëf benn bi mooy jàdd nañ ndigalal yàlla nan nangoo subir conséquence bi ñaareel bi mooy sa borom yàlla doo doo ko ne gëm naa la li nga waxee dëgg rek mu daal dinay fam yóbbu àjjina nga ne ah defal ma gis bokk waaw ñenn ñi ñu tey tëj leen kaso ñenn ñi ñu rey leen ñenn ñu def dugg fii ñenn ñu dugg fa ala kulli xaal nun daa am lu nu war nun daa am lu nu war li nu war daal mooy nan tuub nan gaaw a tuub nan jëllu si ci yoonu yàlla te gaawal tuub gi te sax ci jëf ci manhaj ra الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين السلام عليكم wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi sunu waxtaan wi nga xam ne moom lañu waroon a sof ci
conférence magistrale bi nga xam ne moom lañu fi oustaz Abdoul Aziz Touré defal léegi ci suba gi mu aju ci éducation islamique màcc jëm ci lu lu aju ci wàllu daara yi dananu jéem a sukkandiku ci xalaat yu bari yoo xam ne xaj na waroon nañ ko wax fii ci suñu wax te moom xas na ko wax wax ko waxin bu gën a leer boo xam ne wi buñ ko waxoon sax ci lay feeñe ñu doy looloo la jéem a tënk leneen li nga xam ne xaj na jàpp nañ ne dafay ñëw ngir mottali li nga xam ne moom la def ci subaak léegi boroom xel yi nag dañuy faral di wax ne doomu aadama néew na lool muy jóg soobu ciw yoon lu dul fekk dafa am lu mu bëgg lu ko tax a jóg maanaam képp ku yëngatu rek am na objectif bu la tax di yëngatu loolu kon bu ñu ci sukkandikoo dañuy jàpp ne mbokk yi nga xam ne ñoo woote waxtaan wii tànn thème bii ak mbokki jullit yi ko liir ci këyit wala ñu dégg ko ci rajo wala seen xarit wax leen ko ñu jóg teew si ci bés bi kenn ku nekk ci ñooñu am nga objectif bu tax thème bi intéressé la bu tax nga ñëw di déglu thème bi bu tax nga programme thème bi ñu war ko waxtaan loolu bi nu seetloo thème bi ñu jox ñu ko mooy istintage bi gën a ndaw biñ ci jëkk a def maanaam conclusion déduction biñ ci jëkk a def moo di ñi ko santaane am na lu nu bëgg ngir mën a waxtaan ak nit ñi parce que éducation islamique dafa yaatu te benn bés la ñu war a waxtaan wala genn wàllu bés wala tuuti ci genn wàllu bés boobu kon mënuñu lu dul tënk ci biir li ñu tudd éducation islamique ngir ñu mën cee tënk nag li nga xam ne moom la ñu mën a xool ba xam lu war a mën a jëriñ ci waxtu woowu mooy lu ñu tuddee ay repères ba ca jëkk mooy danoo xool éducation islamique bu doon tey génn jëmm lan mooy njariñ yi mu ameel doomu aadama yi ñu jéem a seet ci njariñ yooyu ay tënk yu ñu war a fàttali tey rek ngir ñu mën cee yëge lan ñu yëge ci ne sàggan bi ñu sàggan ba éducation islamique doxatul ci sunu société bi ni mu ci war a doxe sunu doom yi amatuñ ko niñ ko waroon a amee sunu peuple yi amu ko niñ ko war a amee ñu mën a gis xeetu mbaax ak taar yi nga xam ne yi moom lañ ñu xañ ci xañ ñu éducation islamique ñaareelu repère bi moo doon bañ ñu xañee éducation islamique lañ ñu ko wuutaleel mu nekk fi doon yar bi nga xam ne moom la ñuy yar doomu réew mi njàng mi nga xam ne moom la déemu doomu réew mi di jàng lan lañ ci góobe ci njàng moomu luñ ca witte comme ay meññant loolu itam ñu tànn ci tuuti ay exemple yu ñuy joxe pour bu ñu gam-gamlee li ñu lislaam doon indil ci éducation islamique ñu ñàkk ko ñu xool li ñu ko wuutaleel li mu ñu jural par rapport ak sunu objectif en tant que ay jullit léegi dinañu gis kon ci loo xam ne mënees na cee téye même bu fekkul ne li ñu soxla woon yépp ci éducation islamique dégg nañ ko ci mais dinañ ci am lu ñu mën a téye kon sunu démarche waxtaan noonu la nar a tëdd ñu jeexale ko ñetteelu tomb boo xam ne bi dañ cee laaj sunu bopp ginnaaw bu ñu seetloo lii ñu seetlu ci ñaari tomb yooyu lan mooy suñuy wareef ñun en tant que jullit tey lu ñu war lii mooy constat bi lii mooy bilan bi kon lan moo ñu war dégg nañ ko ci waxtaanu Abdoul Aziz Touré bu ma doon tënk waxtaanam yépp benn tomb laa bëgg ñu gën ko cee téye moo di li mu doon wax yépp daf ñu doon melal li fi nekk pour ñu yëg ni mu toll ak ni mu mel waaye l'islam ba mu wàccee ba tey li ko mës di yitteel ci jullit mooy li mu xam lan moo ciy taxawaay li mu xam ci lu baax lan moo ciy taxawaayam ci jëfe ko li mu xam ci lu bon li fi nekk lan mooy taxawaayam ci jële ko fi kon sunu waxtaan dinañu jéem a privilégié ñun lan mooy sunu responsabilité ci xew-xew boobu nga xam ne moom la ñu moom la ñuy dund melokaan wi ñuy dund kon bu nu xamee démarche boobu ñu tëral na ci lañ nar a jaar tomb yii rek ci lañu war a def sunu waxtaan ginnaaw dalu bi di muqaddima bi introduction bi ak jeexlu bi di conclusion bi xaatima bi li nekk ci biir waxtaan wi ñetti tomb rek lañ ko bëgg a tënk ngir gën a may mbokk yi ñu gën a mën a suivre li ñu bëgg a wax bi ci jëkk moom mooy importance su éducation islamique ci dundu jullit bi ak dundu société jullit ñi ñaareel bi éducation islamique boobu yan objectif moom lay viser ya ca gën a rëy wala boog yenn ci objectif yi dinañ ko tànn pour waxtaane ci ñetteel bi in institution yi nga xam ne ci la éducation bi di sukkandiku pour amal éducation bi maanaam institution scolaire yi institution yi ñu war a sukkandiku pour amal éducation boobu kon loolu mooy sunu ñetti tomb war a jaar ci démarche boobu bu nu laajee sunu bopp lan lañu ñàkk mada xasir na bi xirmaani mujtamaatina wa awlaadina al tarbiya al islamia lan mooy dëgg-dëgg lan lañu ñàkk bi nu xañee sunu société yi ñu di ko mooñ di ko fabriquer di ko tabax ci éducation islamique sunu doom yi bi ñu leen xañee loolu lan lañ leen xañ nu mu toll la ca jëkk moo di yëg gi nga xam ne moom la yarub lislaam di def ci nit ki mu yëg ko àddina bii muy dund lan moo tax àddina bi am lan moo tax moom ñu indi ko fi maanaam li ñuy tudde objectif waxoon nañ ci tàmbali bi ne waa ju am xel ju jóg di dox ci yoon ñi am xel yépp d'accord nañ ni dafa am objectif bu tax mu jóg waaye ku jóg te amuloo foo jëm ab dox lañ la tudde yëg bi nga xam ne moom la lislaam di taal ci nit ki mu yëg lan moo ko tax a ñëw ci àddina ak àddina lan moo ko fi tax a nekk ñàkk bi ñu ñàkk éducation islamique moom la ñuy jëkk xal yëg boobu yëg bi ñuy yëg ne nii àddina tëdde ak nit kii fi nekk ñu sas ko mu war fee wuutu borom bi subhanahu wa taala ci ni ko yàlla wax ci alquran taqdir bi ci nekk maanaam planification bi nekk ci biir loolu yëgadi bi ko doom aadama yi yëgadi ngir ñàkk tarbiyal islamia loolu ci lu nuy seetlu la danu koy gis ci cosaanu doom aadama gis ko ci rihla maanaam voyage suluk bi nga xam ne moom la nekkee ci dund gi muy dund ci àddina gis ko itam ci masiir mu jëm ëllëg ñetti tomb yooyu nashatu l insan wa rixlatuhu fi lxayaa wa masiruhu gadan ñetti tomb la cosaanu doomu aadama ak cosaan lu ko tax sosu fii mu nekk di dund fa muy jëm ëllëg yëg yi ci war a lëkkaloo pour doomu aadama doon doomu aadama addina bi mel lu dëppoog luy jëriñ doomu aadama yëg googu ñàkk tarbiya islam yi da koy dind ci nit borom bi subhanahu wa taala mi ngi wax ak ñun ci alquran hal ataa ala al insani xiinun min addahri lam yakun cheyan mazkura doom aadama na sànni xelam ci ginnaaw ci wàllu jamono ci wàllu temps mu mel ni ci waxinu yàlla fii ci annasjul balaghi ni yàlla tëgge wax ji fii na doom aadama xool ci démb na xool ci temps mel ni doom aadama yépp dañoo bokkandoo jeex ci di xool temps boobu ngeen gis borom xam-xamu àddina bi ñiy xool ci dunduk àddina bi ñaata at la àddina bi dund dañuy wax naan àddina bi à peu près quatre virgule six milliards d'années moom la ñuy évaluer dunduk àddina bi boroom xam-xam yooyu wax ne chiffre boobu buñ ko réduire woon buñ ko wàññi woon ba mu toll ci vingt quatre heures doon benn bés waxtu wi doom aadama feeñee ci jamono boobu mi ngi tolloog la dernière seconde de la journée maanaam kon nga gis li jiitu woon yépp ci heure am na lu amoon te doomu aadama boobu amagul doomu aadama bu kenn xamul fu mu nekk lam yakun shay'an mazkuran kenn tudd ko kenn xamu ko kenn boolewu ko ci lu ñuy tudd doomu aadama bi mu xuusee ci géeju xalaat boobu ko yàlla woo di xalaat ban temps la tàmbali yàlla ne ko eey ci alquran tontu ko inna xalaqna al insana inna xalaqna al insana min nutfatin amshajin nabtali doomu aadama boobu del fil man yàlla maa ko bind ba ma ko bindee seet leen li gën a doyadi li gën a tilim ci yéen nga xam ne ku mu laal nga raxas ko muy toq man yi ci laa ko bind ñu déglu kéemtaan bi nu yàlla bëgg fàttali foofu ci toq man yi la jóge jóge ci ay mbir yu bari yu jaxasoo yoo xam ne borom xam-xam yi nga xam ne ñoo jàng médecine ñoom daaw da ju fag ñooñu mën nañ ñu wax ci loolu ñuy tudde ay chromosome wala ay gène yoo xam ne yi benn bu ci nekk yiy jóge ci jigéen ak yiy jóge ci góor am na lu ñuy benn bu ci nekk lu muy participer ci def nit ki mu doon la mu doon mel na mu mel yoo xam ne yi yenn borom xam-xam yi dana ñuy firé ni loolu yàlla di wax ne am charge yooyu manees na ko cee dégg ak yeneen yoo xam ne xaj na bu xel di màgg xam-xam di gën a màgg yàlla mën naa feeñal yeneen yu ñu gën a mën a déggloo loolu ndax lil quran ata li kulli jil ni ko benn borom xam-xam di waxe al quran ndap la loo xam ne li jamono bu ñëw na nga tolloog sa soxla mu tibbal la jox la te doo bokk ak sa morom borom bi subhanahu wa taala ne maa bind doomu aadama boobu mu mel ni objectif bi dafa bëgg nit ñi gaaw koo xam ba aay bay laata daanu yàlla ne nabtali ibtila épreuve dama bind doomu aadama boobu pour lan pour éprouver ko kon loolu lu doomu aadama yi dañoo ñëw fii ci àddina bi pour benn épreuve benn examen bu ñu war a passé fa jaalnaahu samian basira kon adawaatu al itraak adawaatu al qiyaam bi hada al ibtila moyens yi ñu war a jëfandikoo pour épreuve boobu ñu mën ko def yàlla ba aaya bay daanu mu tuddaale ko maa ko def muy dégg maa ko def muy gis muy yoon yi xam-xam di jaar di agsi ci yow yàlla na mu waxoon inna xalaqnaahu jaalnahu samian basira ngeen gis ne yooyu yëpp yàlla da ko delloo ci boppam moom maa ko bind maa ko def itam muy dégg maa ko def itam muy gis inna hadaynaahu sabila yoon wi mu war a jaar mu yoonu hidaaya pour dox ci yoon wu ñuy tuddee siraatul mustaqim ba àgg ci dëkk bu ñuy tuddee alaxira àgg ci kër gu tedd gu baax gu ñuy tuddee ajjana yoon woowu man maa ko gindi mu tegu ci keneen mënu ko cee teg kon lan mooy cëram loolu yépp man yàlla maa ko def lan laa ko féetale moom imma shakiran wa imma kafuran am na ñaari possibilité bu ko neexee mu xam ne loolu yépp benn sas rek lañ ko sas mooy di sant yàlla fu mu toll doomu aadama liggéeyam lépp ci kaw suuf moo tax bu ngeen demee dañuy wax maratibul ibada la ko dale ci islaam iman ihsaan taqwa shukr moom la ko boroom xam-xam yi mu jële mooy tënk maratibul ibada amalu ala daawuda shukran wa qalilun min ibadiya shakur daawuda yonte yàlla daawuda yaag sax ñooñ yéen jullit ñi yéen nitu àddina bu ngeen bëggee jaamu yàlla lu ngeen di def moo di shukran sant leen borom na ngeen ci xëy na ngeen ci gont ci sant borom bi subhanahu wa taala loolu pour tënk ko pour nit ñi gën koo dégg yonte yàlla ibrahima alayhi salaam dañuy wax ne benn bés ah dafa doon wax borom bi ne ko li nga ma defal ci xéewal dafa bari lool nga sant ma sant sa jaam yi ñu sant la ma bëgg laa sant xool naka laa lay sant bi sama xel demee ci naa julli ndax julli loo fonk la ma ne kat bu ma taxawee tànk bi yàllaa ko bind du man bu fekkee ne jàng naa ay saar làmmiñ mi may waxe yàllaa ko bind moo ko moom du man bu fekkee xalaat naa ci ni nga ko bëggee xel mi ma koy defee yaa ko moom lu ma jël rek loo xam ne lii ginnaaw bi nga ma defalee ba pare dama jàpp ne maa ko war a moom delloo la ko muy njukkal muy sant lu ma lu sama xel dem rek ma gis ne yaa ko moom ma ne léegi naa dellu ci yow laaj la naka laa lay sant borom bi ne ko loolu mooy sant yëgal ci ne lenn lenn lenn luy dox ci kaw suuf lu kenn moom amul lépp yàlla ko moom yëg goog nga yëg Ibrahima mooy sant ma kon borom bi subhanahu wa taala ci saar woowu ne daf ñëw bind di nu nattu ci ñu sant ko wa imma kafuura boroom xam-xam dañuy wax bu ngeen gisee alquran ni ko benn mit wàllu shaara bi dina koy faral di wax lu jiit woon loolu ku deme ni abu xayan tawxid yi daan na wax ne amul kalima ci arab bu ñuy tuddee mutaraadif maanaam benn baat synonyme boo xam ne bi bii li muy tekki bële moom lay tekki benn boo jël ñu ne mook moroom ñoo bokk lu ñuy tekki am na benn nuance am na benn sew sew wuute xalaat bu nekk seen diggante bu leen wuutale xañ na yaa ko xamul mu ne borom bi subhanahu wa taala benn baat bu mu jëfandikoo ci alquran am na benn maana bu mu ko solal bu mu ko bu mu ko chargé boo xam ne moom lay jox waa àddina ngeen gis borom bi muy wax naan shaakiran gis ngeen siixa bi mu ko defee ismu faa'il faa'ilan waaye bi mu ñëwee ci kufru kafuur la siixa mubaalaga la ko def borom bi subhanahu wa taala dafa wax ne muy sant dañu wax ne ci anam googu ñu ko tëggee ci arab maanaam bu ñu koy faral di wax day doon mbir moo xam ne ni jëf juy am la juy répété maanaam sukkur bi kon di ëmb ne yow benn seconde boo toll yàlla ngi lay sotti xéewal yoo xam ne sa cant dafa waroon di répété maanaam sukkur boobu la yàlla seenu ci yow parce que inqitaaxu sukkur mooy ay duxulu fii mantiqati al xafla maanaam cant gi bu dogee rek nga dugg ci lu ñu tudde càggante te càggante moom la yàlla waxoon ne bu nit kiy wàcc di wàcc di wàcc ba àgg ci degré càggante booba mala yi ñoo ko gën ulaika al an'am bal hum adal ulaika humul ghafilun nit ki bu wàccee ba àgg ci càggante googu réer na te yonent bi alayhi salaatu salaam moo ñu waxoon laa yazni az-zani xiina yazni wa huwa mu'min laa yasriqu as-sariqu